bokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM tey nag ñoo am euh, yéene rek dalal ñi nga xam ni ñoom ñoo di suñuy partenaires yu njëkk yu ñëw gunge ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci émission gox bi ginnaaw lool rek damay bàyyi ku nekk daal di nuyoo mu di euh, monsieur Baba Sy représentant plan international ci wàllum Covid 19 ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. merci merci beaucoup monsieur Memar. Euh, ñun tamit kontaan nañ trop tey. Mhm. si teew fii si émission bi ñu ngi kontaan di rafetlu invitation bi. Mhm. Euh, di nuyu aussi sama euh, suñu partenaire bi Abdou Khadre Gueye. Mhm. ñi xam ne ñi ñoo nekk ensemble dans le cadre de projet bi. ok itam xam naa ni fii moom xëy na mu ngi koy bëgg a miin. waaw waaw Abdourahmane ñu ngi lay daral jàmm emat ci biir émission yaa ngi waxaat Abdourahmane Gaye <laughs> nag tur bu neex la. wax waaw waaw ndax Rahman moo yërmande Abdou Khader Gaye Abdou Khader Gaye la Abdou Khader Gaye si si donc <laughs> jiite ONG EMAD. Mhm. di am mbégte. Mhm. teewaat fii une fois. Mhm. pour waxtaanee mbas mii nga xamante ne mooy Covid 19. bon ba le passé maa ñëwoon man kenn. Mhm. mais bii maa ngi ànd ak Baba Sy. Mhm. muy représentant plan international. Mhm. di partenaire bi ñu àndal ci liggéey bi nga xamante ne. mooy liggéey bu rëy bii ñu sumb. mu concerné Dakar. ak xeex Covid 19. Abdou Khadir Gaye loolu am na solo. alors dañ koy dooree rek ak ki nga xam ni moom moo di euh, Baba Sy nekk représentant plan est-ce que tey mën nga ñu wax plan. nu mu tey sooboo ci xeexu mbas mi coronavirus bi fii ci Sénégal euh, ban taxawaay la ci plan international section Sénégal am bi nga xam ne yow yaa leen fii teewal tey. Euh, jërëjëf Memba si si question bi. Mm-hmm. Euh, peut-être boo ma mayee tuuti balaa may répondre ci question bi rek. Mm-hmm. dama bëgg a xam leeral tuuti ci wàllu plan international ñi nga xam ne peut-être xamuñu ko. Mm-hmm. wax na rek rek la. lu ñu wax ONG international. bi nga xam ne moom lu ko tax a jóg mooy xeex ak ak yelleefu xale yi. Mhm. mais surtout yi nga xam ne dafa concerne lu ñu wax euh, jigéen ñi. Mhm. jigéen jigéenu ndaw ñi. Mhm. donc si wàll boobu xam nga ne kuy xeex euh, si àqu yelleefu xale yi. Euh, ñin dañu intervenir au niveau de beaucoup de communautés. donc fii ñu ngi au niveau de six régions. donc ñu ngi Thiès ñu ngi Saint-Louis donc ñu ngi Dakar fii. ñi ngi ñi ngi Kédougou euh, ñi ngi Kaolack ñi ngi Louga kooku ndax mooy zone yi ñu wax les zones sponsorship mooy nga xam ne dafa am ay enfants yu ñu parrainé mais bu weesoo loolu am na ay projets xam ne ñu ngi koy doxal presque dans toutes les quatorze régions du euh, si wàllum xeex mbas mi donc muy mbirum corona bi moom ñu ngi ko tàmbalee depuis mois de mars donc bi ñuy déggee ne mbas mi dugg na Sénégal jël nañu suñuy disposition yëpp euh, pour xool ndax ni ñu réew mi mooy état du Sénégal donc euh, première phase de réponse bi. Mhm. instant yooyu cas yu bëriwul woon dañuy ne woon il le système de santé. Mhm. te système de santé bu instant boobu lu mu soxloon mooy ay jumtuwaay. Mhm. lu mel ni ay masques. ay gants ay gel hydroalcoolique donc yooyu am na ay lim bu am solo. bi nga xam ne jot nañ ko jënd. Euh, daal di ko jëbbal li nga xam ne mooy district de santé mooy région médicale yi nga xam ne ñoom ñu ngi liggéeyal. ah bi ñu demee nax ba cas di gën a yokku il faut vraiment ñu yokk activité de sensibilisation mm-hmm. lépp di topp digal yi nga xam ne ministère moom li ñu wax mm-hmm. mooy li nga xam ne mooy enjeu bi au niveau communautaire mm-hmm. avec euh, yokk cas yi nga xam ne dafa yokk au niveau communautaire boobu ni ñu wax ne il faut ñu xoolaat suñu stratégie ñi nga xam ne dañuy def des sensibilisations de proximité donc ñu ngi koy def si gox goxaan yu bëri mais spécifiquement comme Dakar bi nga xam ne vraiment mooy épicentre gën a ëppee mhm. parce que nee nañu boo jëlee tey ñetti kaa ñaari cas yi fii dans la région de Dakar bëri na mhm. ñi ne il faut ñu def benn projet bi nga xam ne pour région de Dakar mhm. moo tax ñi teel a xalaat benn projet lëkkaloog o EMAT pour mettre en œuvre ce projet bi ñu wax projet 3A muy ànd aar aaru dinañ ci ñëw tegal foofu sa loxo ñu ñëwaat ci Abdou Khadir Gaye bi yoon daa mel ni wax naa ko bu baax alors fusion bi fa la jógee lépp rek ngir Euh, sensibiliser ci gox ak goxaan yi. Mhm. ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci coronavirus bi nga xam ni mi ngi lëmbee àdduna fu mhm. toll nii. Mhm. waaw xam nga Dakar choix bi vraiment dafa nekk lu leer. ndax dakaar dafa nekk benn pôle ba nga xamante ne euh, c'est un concentré du Sénégal. suñu la nee mbas dugg na ci réew mi. dafa am ay gox yi nga xamante ne dañ ko war a suivre particulièrement li tax mooy ne gox yooyu. bés bu ne. Mhm. nit dina jóge fu ne ci Sénégal ñëw fa. Mhm. bés bu ne nit dina fa jógee dem fu ne ci Sénégal. Mhm. zone yooyu ndakaaru moo ci moo ci jiitu. ndax ndakaaru euh, mooy mooy mooy xolu réew mi. te réew mi yëpp a fi daje. donc lépp la nga xamante ni dugg na la ak Dakar di nekk luy wàlle soo aarul ndakaaru aaroo réew mi Touba itam taxawaay boobu la am moo tax bi mbir mi njëkkee am man dama ne. dañu waroon cibler ndakaaru cibler Touba concentré fa doole gi moo tax lëkkaloo bi ak plan ñu ne comme que ndakaaru fi mbir mi daje. ci ngeen di tàmbalee xool naka lañu fi mën a yëngoo. bokkul ak li nga xamante ne plan mu ngi koy yëngu di jàppale district yi un peu partout à travers le pays. donc noonu la demee ñu waxtaan xool mais ñu ne fan ci ndakaaru ndakaaru dafa am ay béréb yi nga xamante ne souvent itam dañ leen di fàtte ndax dañu naan. Euh, même soo xoolee ONG yi intervenir ñu bëri duñu fa ñëw ba dañ naan ñooñu ñàkkuñu dara am nañu lépp antal nañu seen bopp te en fait c'est contraire à la réalité soo duggee biir Ndakaaru gis taax yi taxaw danga nga naan lépp baax na mais ci diggante taax yi di fa fekk des niches de pauvreté où les populations ont besoin d'assistance si biir Ndakaaru muy Dakar Plateau ak biti Dakar Plateau muy zone périphérique bi ak aussi yenn euh, gox ci banlieue ndakaaru mm-hmm. muy soixante quartiers yi nga xamante ni mm-hmm. fa la ñuy intervenir mm-hmm. ñaan yàlla mu barkeel ko ba yéene biñ ci am mën a àgg mooy euh, chaîne de transmission covid bi ñu brisé ko yaa ngi doon wax léegi léegi ci li nga xam ne moom moo jëm euh, ci stratégie yi ba mu jugee tey mënuñu wax dara te duñu wax ci li nga xam ni moom moo jëm ci cas communautaire yi kon dama jàpp ni est-ce que itam nekkul ni ku wax cas communautaire wax riposte communautaire si sama xalaat bu gàtt. waaw kon def naa mbirum euh, riposte communautaire bi sax yàgg nañ ko di ko wax mais peut-être nit ñi danoo defe ne woon ne mbas mi du toll fii tey. Euh, man yàgg naa di liggéey si wàllu ay lu ñuy wax approche ay stratégie communautaire te gis nañu fii ministère de la santé moom succès yi mu am yëpp ndam yi mu am yëpp si wàllu promotion yenn politique de santé mi ngi ko amee au niveau communautaire donc yu si bëri. Mhm. moo tax tey munoo bàyyi aspect boobu parce que lu tax parce que bu ñu waxee cas niveau communautaire mooy gox goxaani yi. Mhm. wàcc parce que booy wax niveau communautaire aussi parce que day défi day définir un peu lu ñu wax comportement nit ki. Mhm. xam nga nit ki tey balaa ngay mun di ko gindi balaa ngay mun wax ak moom. balaa ngay mun sa di jéem a changer comportement mooy jikkoom wala melokaanam. il faut nga xam nu muy dundee il faut nga xam nu mu nekkee il faut nga xam tamit kii yan fànn laay jaar ba li nga xam ne su ma ko ko waxee dina ko mun dégg te dina ko mun jafe jëfee ko donc gëstu boobu il faut nga jël temps def ko moo tax ñu ne fii Dakar dafa am particularité bu rëy di ñuy wax urbanisation pôle économique la comme ni ko waxee Abdou Khader pôle pôle pôle social la donc dafa am urbanisation dafa am ay contacts yi nga xam ne dafa seere dafa bëri ay ay gare ay marché ba pare yenn yenn melokaan melokaani sa nit ñi nu ñu dundee si biir quartier yi dangay gis ne fii kër yu si bëri bu si tuuti ba tuuti am na juróom-ñett ba fukki nit. wala lu ko lu ko ab ñi nga xam ne ñi si biir. Mm-hmm. donc fii jàngoro bu mel ni corona bi ak melokaan bu muy. wàll bu muy indi. bu duggee si yi donc propagation bi dafay gaaw. Mm-hmm. dafay gaaw mm-hmm. moo tax ñu ne tey lu am solo mooy ministère de la santé lan la wax dafa digal ay mesures. yi nga xam ne mesures yi dafa ne bu ñu ko jëlee respecté ko ah ñi ne am na ñu chance mucc mhm. si mbas mi donc mesures yooyu pour rappeler ko mooy laan mhm. ñu ne tey tey ñu ne def ñëpp ba ñëpp sol di sol seen masque mhm. bu ñu génnee ci biti comme nañ ko defee nit ñi waaw def lépp ba nga xam ne yow booy génn ak booy dugg si kër gi sax amal réflexe toujours fooy nekk di raxasoog sa loxo ak saabu defal yëpp ba nga xam ne yow booy tissooli defal yëpp ba tissooli boobu du jege nit bi nga xam ne yooyu yëpp boo ko mënul respecté jéemal respecté benn distance booy respecté distance nag ça veut dire que mhm. yenn mbooloo yenn daje yi danga koy moytu. Mhm. malheureusement tey fii. Mhm. mesures yi ñuy jëloon. bi ni tàmbalee xeex bas bi mesures yooyu fu mu nekk nii yu si bëri dañ ko suspendre. moo nay maanaam boo seetloo ñi ni delluwaat lanu si lu ñu nekkoon. donc si si loolu tey. donc xeex bi tey day gën a metti. ok mais est-ce que ni euh, xaw a bàyyeeku daf ci xaw a am tuuti. waaw bàyyeeku bi su koy wax day fekk ki nga xam ne moom. message bi nga xam ne da nga ko da nga ko da ko tëral mhm. moom comprendre ko wala boog moom daf ko daf ko daf ko bañ a jëfee mais loolu bu ko bañee a jëfee ça veut dire moom gëmul feebar bi mhm. man loolu rek laa ko mun expliquer parce que mhm. dama gis ne ku gëm feebar bi ku ko dégg gis ko nga responsable normalement war nga def yëpp pour pour pour pour pour pour pour moytu mu daal la donc léegi lan mooy expliquer tey boo génnee nit ki nga ngay dajeek ay nit ñi nga xam ne duñu sol seen masque la question mais kii xanaa. xamul lu xew <laughs> du déglu rajo du déglu tele wala moom dafa jàpp ne feebar bi du ko jàpp. <laughs> mais lu tax nit ñi tey duna am réflexe tey bu ñu génnee seen kër wala dugg duna raxasu saabu. <laughs> lu tax parce que loolu rek fu ma nekk nii moom moo mun na jàngoro bi jàng jàngoro bi. donc dañuy ne léegi mais déjà il faut ñu dem si nit ñooñu jéem a waxtaan ak ñoom. ñaax leen ñaax leen. ñu leen mais affaire baa ngi fii am na ay preuve li ñuy def nii pour yéen la. parce que tey jàngoro bii. Mhm. du dox fekk si la yaa koy dem nit ki moo koy jox yow boo aaree sa bopp di nga def yëpp yow ñii ñi ngi nii di dox di génn. Mhm. mais dañuy jël ay mesures de protection. Mhm. kenn waxul ne ndax ya euh, doo si mucc mais defal yëpp ba au moins. yow li nga war a jël comme nga jël ko. leneen leneen lay doon leneen leneen ngay doon. maintenant loolu ndax mu ngi koy def. dañu ne fii danoo am lu ñu wax euh, lu ñu wax ay ressorts. ay ressorts socio-culturels symboliques. muy ci biir kër gi la commencé. xale bi tey. dafa am ku ko yilif muy ay parents am. donc normalement parent moom bu amee baat si moom war war war na man man damay jox si man sama. Mhm. sama doom ñamul génn même buy dem si boutique bi te solul masque. dafa dem ba nekk réflexe. Mhm. bu jógee boutique bi sax bi nekk à cinquante mètres bu ñëwee lu muy njëkk a def mooy raxas. Mhm. donc kooku tey parents yooyu ñëpp buñ ko doon def fii tey doo gis xale bu génn tey te solul masque. teer wala raxasuwul. beneen bi tey mooy ñi nga xam ne tey peut-être dañoo am Euh, quartiers yi yenn gox goxaan yi. Mhm. am na ay imaam. Mhm. am na ay borom borom borom. borom dëkk nag mhm. borom tër. lu ñuy wax les leaders d'opinion. ay bàjjenu gox ñi nga xam ne bu ñu waxee da leen di génn da leen di déglu jox leen cër. donc généralement ñooñu bu ñu waxee. dañ leen ah. comme de Massamba bi wax na te Massamba bi lu mu mus a wax moom dëgg la sëriñ bi wax na dañ ko war a takk téere ah comme kii wax na ma il faut ma topp li mu wax li tey comme comme bés ni ki tey nii tey comme kii déggu naa ko wax na lii naa jéem a soppi sama sama sama jikko jéem a def li nga xam ne moom la gars yi digal ñu ngi woon ak Abdou Khadir mi ngi woon fu am solo nee na Dakar boo duggee taax yi ngay gis ci kaw nga yaakaar ni ci biir amul dara mm. eh, expliqué ñu naka ngeen tey duggee ba mun a xam détecter jafe-jafe yooyu nga xam ni ñu ngi koy gis ci gox ak goxaan yi te ñu ngi xeex mbas mi te yeggu na foofu yéen ngeen ñëw indi seen stratégie ngeen ne faaw ñu dem ci ñoom ndax soxla nañ ko. parce que suñu intervention ci terrain bi en fi tàmbaliwul tey euh, je te di que depuis cinq ans ñun ak international. ñu ngi xeex tuberculose. te dafa am zone yi nga xamante ne fii ci Ndakaaru EMAD moo ko yore muy département de Dakar déjà le district sanitaire sud. centre ouest ak nord depuis cinq ans EMAD moo fait intervenir ak plan pour arrêter. la propagation de la tuberculose. donc zone la yi nga xamante ne dañ ko xam bu baax a baax a baax a baax mu am benn anecdote bu l'ex-maire de Dakar Plateau doon wax mu ne su gàmmu amee. dañuy organiser CRD. Mhm. à Touba su màggal amee tam même chose à Tivaouane à Touba ci communauté religieuse yëpp te soo seetee cérémonie yooyu deux à trois millions de personnes peut-être moins. Mhm. ñoo fay daje. Mhm. mais dinañu daje jël précaution yi pour nit ñi mën a dajaloo foofu. te duñu lorante. mu ne chaque jour que Dieu fait rien que la commune de Dakar Prato reçoit deux millions de personnes. bu ne kon soo ko seetloo ci logique. Mhm. bés bu ne CRD la waroon nekk. ci gox yi bés bu ne mhm. autorité yi dañu war a réunir xool yan conditions la ñuy mettre pour que les populations puissent se rencontrer. Mhm. dans cet espace là réduit. te duñu lorante. kooku nag soo xoolee chaque fois su ay choléra amee. ci yenn épidémie ndax c'est pas la première fois. ñun xam nañu yan zone moom mooy zone yi ñuy gën laal fa lay lawee amul ma dem te ñëw. parce que deux millions de personnes ñoo fay concentré wu. alors que la population réelle. est de trente mille habitants pour la commune de Dakar. puisque zone bi nga tudd nii Dakar Plateau cas communautaire yi nag mu fay bëgg a bëri nag. ah mais seen seen natt warul bett kenn pourquoi dafa bëri. wax naa la ne trente mille personnes ñoo fay yeewoo mais deux millions de personnes ñoo fay daje chaque jour. tu peux même dire que yeneen cas communautaire yi law feneen kii ku fay lawal fii la parce que zone de concentration humaine la. ci biir zone de concentration humaine boobu nag mu am des quartiers laissés en rade. mooy yenn quartier. Ruqu Jinne euh, Tafa si bu Ruqu Jinne dafa ñëw seet si ma avant ñuy def moom ma gën a inspiré sax plan bi. moo tax ma waxtaan ceex directeur. dafa ñëw ne ma seetam président yéen ngi seetaan mais soo leen seetaanee ba feebar bi dugg fii. am ngeen problème parce que même confinement bi ñuy def. Hmm. confinement bi mooy danger foofu. parce que c'est des zones où les populations peuvent vivre en rotation ñii suñu yeewu di dem ñii di ñëw pour nelaw si soo leen ne bu leen génn ñoom ñëpp ñu dajaloo fa si benn moment c'est là où se trouve peut-être même le danger <laughs> et il a la l'alerte il est venu à deux une trois quatre fois cinq fois ay mat di ma wax loolu <laughs> ma ne attends xaar ñu jug du rox jinne kese mais kaay findiwu mais Ndiaye Thioker mais Rebeuss li ëpp ci cas yi xadinoo ci formation yoo xam nañu ko nee na c' est vraiment Ndiaye Thioker et Rebeuss mhm. c' est les zones où vraiment y a une bombe à retardement mhm. moo tax bi ñu former relais communautaires yi daf leen ne yéen li ñuy xaar ci yéen dafa bëri mhm. parce que soo leen maîtriser mbir mi ci zone bii am nañu yaakaar ne law bi dina mën a taxaw parce que c' est des zones vraiment vulnérables et très très très très mais man fa laay dañ ko xam fa la EMAD juddoo en fait à partir de foofu fa la EMAD déployé wu vers la banlieue et le reste du pays. Mhm. moo tax zone boobu dañ ko maîtriser bu baax. Mhm. pour ñu xool ne ñii war nañ leen jàppale. Mhm. soxlawuloon sax ay réflexions yu yàgg. parce que comme je te dis depuis cinq ans on suit la tuberculose. xam nañu ñi feebar tuberculose fan la ñu nekk. xam nañu ci choléra bi ñëwee fan lay def ravage. donc même foofu tuberculose bi di law. choléra bi di fa law. coronavirus. fa lay lawee parce que conditions ya fa loo lële. moo fay lawloo lii. et c'est des conditions qui sont ñëw ak monsieur Sy monsieur Sy kon gis nañ ni xeexu coronavirus bi yaa junjoon nga ko léegi kon mel na ni askan wi ñun population bi dañ ci am ab pàcc bu am solo boo xam ne ñun war nañ ko ci gérer sans pour autant ñu wax ñu ko. waaw xam nga souvent damay ne lépp danga koy jéem a contextualiser. Mhm. ñun buy bu bu affaire bu muy door man foofu laay remercier sax. vraiment ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, le ministère de la santé parce que ñoom dañu jot dañu jël temps toog di réfléchir par rapport mm. à parce que dama ne stratégie bi am Sénégal mm. ah xaw ma ndax am na yeneen réew de mais heureusement que jëm nañ ko teel mooy lu ñu wax maa ngi koy rafetlu mooy suivi lu ñu wax suivi des contacts mm. peut loolu tey bu ñu ko deflu woon tey peut ñi ngi si ay ah plus de plus de milliers de cas et puis stratégie boobu dafa benn mentalité bu xaw a xam nga en Europe boo ko xoolee bi ñu demee ba affaire ëpp leen doore da ne ku nekk na toog ci biir këram. jël force loolu génne leen ku génne ñu amande la. ay mhm. cinquante mille cent mille jëm kaw. vraiment kooku ay loi yu ñu la. Mhm. mais loolu tey xam nu loolu mën na ko fi def fii en Afrique. lu metti lay doon lu metti lay doon donc fii bi nu jéemee def une restriction même des libertés gis nañ ni lu mu lu nga xam ne lu mu jur mm-hmm. comme conséquence mm-hmm. moo tax fu mu nekk nii ñi ñi dellu soit parce que aussi mm-hmm. xam na nañu type d'économie bi bi bi na am loolu du mun continuer maintenant par rapport à ça léegi danoo war a ñëw xool par ban stratégie ni war a def parce que stratégie bi fii tey au-delà suivi contact lu ñu def mooy une de sensibilisation c'est vrai que force de l'ordre ñi ngi si jàpp ñi ngi nekk ci biti mais am na fi nga xam ne lu waa ji doon wax mënuñu derrière chaque Sénégalais mettre un policier c' est pas possible donc tant que fii nit ñi jëluñu conscience jéem a seen bopp pra jël mesure di ko respecter ño je pense que mbas bi du fi mës jël mais loolu ndax il faut ñu agir si il faut ñu jéem si arriver à par tous les moyens loolu dama ne amul secret nit ki da ngay xool foo mun jaar pour convaincre lan mooy rusuwaayam kan lay mun déglu pour moom discours bi mun a jàll te loolu de manière générale dañuy ne nu ko on on peut l'avoir que à travers les d'opinion mm-hmm. bu muy wax leader d'opinion kilifa diine yi si lañ bokk moo tax tey boo leen gisee nit ñi dem waxtaan ak euh, la jeunesse catholique mm-hmm. ah, bi nga xam ne dafa organiser une bonne organisation au niveau de Dakar mm-hmm. dans chaque diocèse dans chaque paroisse am nañu des associations de jeunes ñu ne ñii bu ñu lëkkaloo ñoom au moins ñoom quartier yi ñu fa nekk dinañ def les sensibilisations lu may rafetlu mooy projet ànd aar bi ñeneen ñu ngi koy defan ah. ay personnalité fii Babacar Gueye mi ngi koy def mm-hmm. moom lancé na fi benn offensive mu mm-hmm. ngi méngoox comme si ni bos bi mm-hmm. gis naa démb euh, le professeur Diakhaté Djibi euh, Diakhaté sociologue mu ne navetaan covid ASC pour dugg si donc loolu yëpp day fédéré day nekk ENDA mi ngi fii donc ñu bëri vraiment ñi ngi def ay coalition ku si nekk di jéem a xool mais l'essentiel je pense que ñi ñëpp bu ñu defee un maillage complet des quartiers et des villages peut-être on arrivera à bout de cette dañuy ñëw Euh, da ngeen jëloon ciblé woon soixante quartiers ngir tàggal fa ay relais. Mhm. ngir ñu gën a mën a wàcc ci terrain bi. Mhm. tey fan ngeen toll ci relais yooyu door ngeen commencé formation yi ba ñoom ñu ngi wàcc ci terrain bi di sensibilisé askan wi. tout à fait euh, commencé na ci yenn districts yi parce que sept districts sanitaires la. Mhm. donc euh, am na trois districts sanitaires yi nga xamante ne def nañu formation ba pare ba relais yi ñu wàcc ci. terrain bi mooy district sanitaire ouest. Ngor Wakaam Yoff mhm. moom la polarisé. Mhm. ñoom seen formation pare na et au total on a seize quartiers. Mhm. les seize quartiers traditionnels de ce de ce district. formé nañ leen. donc seize quartiers ça fait cent soixante relais communautaires. Okay. au niveau de Ngor Wakaam Yoff. au niveau du district sud. Dakar Plateau Médina Gueule Tapée Fass Colobane. donc on a euh, six plus onze ça fait dix-sept quartiers. Donc ça fait 170 relais communautaires mm -hmm. qui sont déjà formés mhm. et qui sont en train de se, de se, de kon, se déployer kon, ñoom bu ñuy wàcc yéen da nga leen di jox ay jumtuwaay. waaw parce que dañu wax ne eh, nañ fi xool naka la ñu mën a dundee ak virus bi. Mhm. loolu le président bu jee wax moom la mhm. baaba justifié léegi. parce que ku xool ni ñuy dundee fii Sénégal ak économie informelle bi ak économie populaire bi xam nga ne mënoo tëj nit ñi seen kër. koo ko jox lu mu lekk te état bi antunu ko. donc moo tax ñu wax. Euh, état bi wax loolu. Mhm. mais nit ki pour mu mën a dundaax mbir. bu ko mën a lor te du ko lor foog mu xam ko. Mhm. moo tax ñu ne ñun suñu mbir dañ koy accès ci formation bi. Mhm. d'abord gaynde sax soo demee sa waalo soo mbokki waalo waalo yi. mais dañu xam gaynde bu mun koo jàpp. mën mun mun ko mun ko def gardien seen tool. c'est parce que da nga xam gaynde gi nit dafa xam fas moo tax mu mun koo yeew. dugal ko ci toolam mu bayal ko ko. soo demee Inde da gis ne ñey ndax li muy reex doole bi yëpp xam bi ñu ko xam moo tax ñu mën ko utiliser. Mhm. donc suñu demee ba xam feebar bi mhm. dinañ ko mën a. ko daan. Mhm. dinañ ko mën a mbas moo tax ñu accentuer sur la formation. donc ces relais communautaires la dañu leen yóbbu en formation en partenariat avec le district sanitaire. tàggat leen ñoom ñoo leen di tàggat. wax leen lépp bu ñu war a xam. suñu leen tàggatee ba pare nag à charge pour ñoom. tàggat boobu ñu leen tàggat. ñu yóbbu ko seen gox tàggat ménages yi moo tax ñu ñu ciblé les ménages. ok ñaata ménages. soixante quinze ménages par quartier. ok ça fait au total quatre mille cinq cent ménages. ñu gëm ne suñu tàggatee relais yooyu yëpp on en aura six cent au total pour les soixante quartiers. Mhm. relais yi dugg ci quartier yi tàggat quatre mille cinq cent ménages. nga xam ne ñu nee ménage mooy dañuy dugg boroom kër gi ñëw toog ku jigéen ki ak ku góor ki mhm. doom yi ñëw toog surga yi ñëw toog mhm. ñu xamal leen information bu gën a li ñu war a xam ci feebar bi mhm. wax leen ko ba pare jox leen ay jumtuwaay xëy na loolu dina am impact bu rëy rëy rëy ci askan bi parce que lépp nag ci xam-xam la tegu lépp ci xam-xam la tegu ñi baaba wax sànq ñi nga xamante ne dañu bañ ne gëmuñu ne feebar bi am na tool ñu ñu toll ba ay soixante nangam yi di dem. waaw c'est parce que l'enfer c'est les autres. yàlla quelque part sax mu bindee noonu doomu aadama. Mhm. toujours suñu ne am na mbir buy dal nit ñi yow toujours da nga ciy génn sa bopp. Mhm. waaw da nga naan du la dal. Mhm. muy accident muy sida muy tuberculose toujours yow da nga ciy génn sa bopp génn si sa njaboot. or su fekkente nag jëfandikoo nga sa xel. xam nga ni mbir mii kenn mënul waat ne di nga ci di nga ci mucc. kenn mënul waat ne di nga bokk ci ñi koy nettali ëllëg hmm. da koy ñaan nag hmm. ku nekk waslu ci ax def ci le maximum pour le maximum de personne bokk ci hmm. moo tax approche boobu lu ñu ciblé mooy formation des relais ñuy transmettre euh, formation bi au ménage te xam nañ ne ku former yaay former nga kër moo tax tàggat toujours ak siiwal ak jàngale dañ ne jox ko jigéen moo tax ñu doon wax sax am na époque ku doon théoriser loolu. mu ne su jigéen jàngee ba am benn niveau scolaire bi. njabootam tout de suite dañuy dañuy dañuy dañuy sori. moo tax ñu ne sooy former former jigéen. parce que moom li nga ko jox. da koy jox njabootam li nga ko jox da koy jox borom këram. su dee borom kër gu góor gi nga formé mën na ko bañ jox ji jabar ah. ko bañ jox ji. moo tax ñu def approche ménage boobu ci approche menage boobu nag ak relais communautaire yi ñuy liggéeyal ñu boole ci ndaw ñi parce que mag bu sàggan. xale bu yaru moo koy jooyanti. Mhm. mag bu sàggat Abdou Khader. Mhm. yor sa bee di dox solo masque. Mhm. sama moromu sët. dab la ne maam nga ne naam mu ne la feebar baa ngi fi solal sa masque ndax lii dina def tilt. waaw dina tax nga mën a réagir. Mhm. moo tax quand j'ai vu le film bi Cheikh Omar def. Mhm. ñu wane les relais de Thiendéem ñu nekk ay xale. Mhm. avec engagement. et engagement bi da koy comprendre. ils veulent faire quelque chose ils veulent être utiles à leur société. soo leen joxee une occasion d' être dañ koy jël avec enthousiasme. gis nañ ñu dugg ci kër yi di wax mais nit ñi dañ leen jox nopp. parce que seeni doom lañu. ok kon kon ndaw yi ñoom am nañ ci pàcc bu am solo bi nga xam ne war nañ ko ci jouer. naam jàngoro bi dañ naan troisième âge la gën a sonal waaye tamit ndaw ñi tamit ils sont exposés ci jàngoro bi ndax yéen yéen a ngi euh, préparé ndaw ñi ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci Covid bi. waaw bu baax a baax mm. ndaw yi sax en fait bu nu wax euh, ñoom dañ leen di wax ci ñaari pàcc comme ni ni bi may tàmbalee sama waxtaan. Mm-hmm. nee naa plan lu ko tax a jóg mooy mooy xale yi. ndaw ñi donc euh, ñin dañ dañuy jël ndaw yi ci si deux côtés. Mm-hmm. ñaari côté. pas seulement que ñoom da leen war a protégé mm-hmm. kooku moom mooy suñu priorité da leen war a protéger si fànn yëpp. Mm-hmm. te kooku dinaa si dellu soit mm-hmm. parce que tey boo seetloo lu ñu wax conséquence yi jeexit jeexital. Euh, euh, Covid bi xale yi ndaw yi la gën a touché. te dinaa si dellu soit mais beneen bi aussi dañuy jàpp ne ndaw yi c'est des acteurs. de changement. ñoom seen bopp am na mel boo leen conscientiser ba ñu jël conscience. ñoom ñi jël conscience. ñoom mun nañu waxtaan ak seen moromu ndaw pour ñoom tamit ñuy changer comportement jël conscience pour respecter les mesures barrières donc ñaari fànn la côté prise en compte ndaw yi donc loolu moo tax mu am solo te bu may wax euh, conséquences yi mooy tey boo xoolee doonoo nekk contexte bi nga xam ne ne jàng amatul maanaam donc maanaam xale yi danoo bëri jot nekkatuñu école ah, donc nekkatuñu école lu ñu def mhm. mënuñu toog ci biir kër yi mhm. parents yu bëri mënuñu leen téye mhm. dëj leen ci biir kër yi xale yi dañuy génn doxi seen soxla dem football yi dem defee boo génnee ci biti da gis xale yaa ngi football xale yaa ngi mm-hmm. géej mm-hmm. xale yaa ngi truc da ngay gis na leen ñii sax en fin de compte mm-hmm. dafa mel ni en fait euh, yëguñu yëguñu lu xew benn bi tey dama koy jàpp si côté xale yu jigéen ñi tey ñi nga xam ne parce que depuis mois de mars ba léegi jànguñu tey mais ñooñu tey boo xoolee ñi ngi si kër gi di def liggéeyu kër gi ñu si bëri boo xool la euh, mais bu weesoo liggéeyu kër bi lan leen def leneen li nga xam ne mun na leen indil mun na leen amal njëriñ gisuma ko ñu si bëri gisuma ko te loolu euh, mun na mun na leen indi ay conséquence mm-hmm. parce que xam nañu jigéen ñi fii danoo danoo fragile da leen war a mm-hmm. protéger. Mm-hmm. parce que tey da ngay gis famille bi nga xam ne tey contexte bi nga xam ne ñu bëri tey seen liggéey dañ ko perte. à cause feebar bi. comme bi demeewul noonu. waaw comme bi demeewul noonu. comme ni mu demee am na ñi nga xam ne lu ñu doon am amatuñ ko. moo tax léegi ñoom dañuy jàpp seen doom yi en fait di wéeru si ñoom. pour jéem a xool lu nu af am ab tuuti pour dugal ko ci biir kër gi. da ngay dem sax ay yenn famille yi nga xam ne ne ah comme daal sama doom bi fu ma nekk nii moom soxla na toll na fa am am jëkkër mhm. te jàng bi demeetul noonu est-ce que kii man daal duma ko jéem a xool ma ma may ko jëkkër mhm. pour débarrasser su moom moom genre de la dégg nga débarrasser moom pour bu nekk benn bouche mhm. de moyen kon tey ngeen war a gën a mën a taxaw ci loolu oui parce que gouvernement Sénégal dafa yàgg xeeb xeex pour yokkutoo taux de scolarisation bi pour jigéen ñi protéger leen pour xale yi ñu protéger leen. Mm-hmm. mais boo seetloo loolu lu si bëri fu mu nekk nii mm-hmm. mi ngi mi ngi dellu ginnaaw. Mm-hmm. xool xoolee ko xale yi tey vitamine A yi PC yi ñu ko waroon def kenn mënatu ko def parce que nit ñi seen bopp sax dañuy ragal dem bis mais loolu yëpp il faut ñu gëstu si xool naka ni ñuy def. pour jéem a xool continuité des services. ku ku bëgg a feju ñu fej la. léegi dañuy jéem a jël ki nga xam ni moom mu ngi si ligne bi waaye yaa ngi woon fu am solo. Euh, ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci euh, coronavirus bi junjoon nga ko léegi léegi euh, ñu ngi ci benn approche kon bu am solo kon donc il faut ñu gën a wegaat xale yi donc jox leen gëdd bi nga xam ne nag moom la ñuy gën a am ci mbir mi. waaw c'est important je pense c'est important euh, parce que tey bi ñu wax mbirum cas communautaire. kaa hmm. communautaire <laughs> souvent dañu wax ne. nit ki dafa ñu jël mbokk moom salaamaaleykum. asalaamaaleykum euh, rëcc na xëy na du ñàkk dina duggaat léegi léegi yaa ngi woon fu solo nga ne cas communautaire yi kon. non man man cas communautaire dafa def affaire doy waar damay toog yenn saa yi di ko analyser. Mhm. gars yi bu ñu dëppee di ne ah communautaire mooy ki nga xam ne daa jàngoro bi daf ko dugg moom xamul xamul xamul fan la. man man tey je me dis ça est ce tey ñi nga xam ne ñoom da dañoo nekkoon cas communautaire ñi dem ba wër. Mhm. est ce que mënu leen gis jël sa utiliser leen. comme ñu jël mbokk moom salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, sëñ bi ñu ngi lay eh, ziar di la dalal jàmm ci émission gox bi. waaw di leen nangu ziar. Mhm. di leen nuyu. Mhm. di leen gërëm di leen sant. Mhm. tur bi. man maa ngi tudd Cheikh Omar Gueye. dëkk Dakar Plateau. voilà bëggoon participer ci émission bi. Cheikh Omar bisimilah ñu ngi lay déglu. voilà alhamdulilah rabbil alamin di gërëm ñooy nekk sa plateau bi muy Babacar bu plan ak Abdou Khadre Gueye bu Emat. ñu wax ne ñu ngi suivre boobu ba léegi nag. ñu ngi suivre. te yaakaar naa ñoom xeex xeex nii. xeex su démarroon bu yàgg Sénégal feebar bi du agsi fii. ndax c'est un communautaire solution communautaire mu ngi soog a ñëw. alors que au départ ay na ay xiif di jox ay ceeb ak suukar ak saabu alors que xeex bi fii la. donc suñu xeexee xeex feebar ba mu jóge fi. dootul dara ñu joxe ceeb ak suukar. affaire bi dafa war a jóge ndax mu ngi fi bëgg a yàgg te mu ngi lor nit ñi te nit ñi conscient wu ñu donc conscientisation yaakaar naa moom la plan du dox ak EMAP donc ñu leen ci gërëm di leen sant di wax képp koo xam ne di yaay xeex ci xeex bi demal nga ci plan ak ci EMAP bi wan la fi ñuy jaar nga jaar foofu ndax mbir mi foofu la donc loolu vraiment c'est vraiment toute petite participation bi ñu bëggoon par rapport ak euh, émission bi yéen tam di leen gërëm di leen sant ci gox bi émission la bi ñuy suivre tout le vraiment macha allah alhamdulilah rabbil alamin euh, léegi xeexu communautaire bi foofu nu mu mel. ah plateau ñu ngi koy sentir ak ci Dakar parce que foo foo dox yaa ay xale yu sol hmm, ci sët dugg si kër yi di wax ak nit ñi formation yi yaa ngi dugg di réseaux sociaux yi gis ne dañu former xale yi ba pare xale yi dugg si kër yi informer nit ba pare nag war nañ jàppale si xeex communauté boobu si benn si ay kit donc loolu ñu ngi ci teg suñu bët léegi léegi booy ñëw rek hmm. am na xale yu mu si Lamine Gueye bi hmm. ma laaj leen ñu ne ma euh, ñu ngi jóge mbott hmm. donc xaw ci ko ñu ngi terrain bi parce que xanaa xanaa mbir mi loolu terrain bi la parce que ñu ngi conscient guñu si mbir mi carrément mooy ñàkk conscience maanaam ba te da ngay dox si dëkk bi gis ñu sol masque da ngay dox si dëkk bi gis ñu ngi julli jumaa ñu dànkala ko marché yi ñu ngi dànkala ko nit li ñu ngi def leen neex alors que feer lay bañ Donc il faut qu'on les informe mhm. d'une bonne manière telle que mhm. ñoom ñu mën a conscience yi xam ne lii seen mbir la ñu jàpp si jàpp si mu jógee si benn yoon mhm. mais on voit sur le vraiment que xeex bi am na ñu si commencé ñuy plan ak EMAD te yaakaar naa loolu dina jëm kanam insha allah rabbi kon xeexu terrain la war a doon mbokk mi rëcc na mu hmm. doon kaddu yu am solo mu ne mi ngi romb nit ñi ñu ngi sensibiliser ci gox ak goxaan yi ci koñ yi. Hmm. kon donc yaa ngi woon ci pàcc bu am solo nga ne cas communautaire yi nga ne ñenn ñi daf leen xaw a sax. Euh, waaw dafa dafa doy waar. <laughs> dafa doy affaire bu doy waar parce que nit ki day ne man wax dëgg yàlla jàngoor bi xaw ma fan la fan la ma duggee. <laughs> xaw ma <laughs> mais l'essentiel mooy dugg na ko. dem na ba yàlla jàpp ne ko mu mu wër. Hmm. mais pour man sa kooku relais la parce que comme affaire bi nu mu ko bettee. ba mu yàlla suturaal ko mu génne kooku bu génnee. dafa war a dem waxtaan ak. ay waa goxam mhm. ñeneen ak ñeneen ne gis ngeen de affaire bi gëmuma ko woon wala gëmoon naa ko sax mais mën na am jëluma woon sama sama sama jumtuwaay mais nga mhm. jàngoor bi may dugg yëguma ko mhm. lii ak lii la ma def kon dama leen ko parce que affaire bi mun na dal ku ne te moom sax voix mën na gën a mën a génn c'est ça voix am dina communiquer donc boo gisee souvent ñi leen ñuy mobiliser genre ñooñu c'est pour que ñoom ñi gën a mun convaincre euh, ñeneen ñi pour ñu gëm euh, kii bi euh, beneen bi tamit comme lu mu ko waxee tey danoo soll fi nga ne benn affaire rek moom mun moo fi di mun dindi corona. il faut ñu am lu ñuy wax engouement. man engouement. Mhm. dafa normalement doon affaire bi nga xam ne dafa spontané. Mhm. dama koy gis par exemple bi Sénégal demee finale. Mhm. Coupe d'Afrique mu raté finale Coupe d'Afrique. ñu jël mbokk moomu encore salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, soxna si ñu ngi lay nuyu. allo. ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar bu baax. tur bi nan la. Xadijatu euh, Wan. Xadijatu ñu ngi lay dalal bisimilah Xadi. ah oui euh, ci kii bi laa doon wax. acca bisimilah bisimilah waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. Ah, je pense que pour vaincre le coronavirus. Mm-hmm. prendre des précautions comme se laver les éviter les embrassades. Mhm. ne pas se saluer, mhm. garder les distances, comme mhm. on dit, mhm. pour, pour mieux aider nos médecins à trouver le remède. Vous pensez que c'est la solution Pardon? Vous pensez que c'est la, solution Oui, en plus de ça, de respecter les heures, les heures que nous demandent, de les heures de couvre de ne plus sortir, mhm. de respecter tous les, tous les consignes données. Mhm. C'est ça. Mm -hmm. Ok, ok. <laughs> Mhm. Euh, yow dafa mel ni am nga formation boo subir de xanaa. waaw. Euh, bi nan la tëddee ndax tey léegi yaa ngi wàcc ci terrain bi di sensibiliser euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi walla sax mag ñi ci jàngoroy coronavirus bi. Euh, c'est formation Kapale waaw ma ne ba xam tey yow yaa ngi ci terrain bi di sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci jàngoro bi. waaw. nan la yomb na walla yombul. Mm, non yomb na. yow nan nga koy defee nan nga koy defee. nan laay defee lan. sensibilisation bi. avec un gel et des gants, mmh. avec un masque, un masque, bien sûr. Mmh. À l'arrivée, mhm. nous allons saluer bien sûr, mhm. demander d'aérer les salles mhm. ou bien mettre du, ventil du ventilateur, leur expliquer que le coronavirus est, euh, est une pandémie qui se répand vite et leur dire de prendre des précautions, leur expliquer comment utiliser les gels désinfectants. Mmh. Et, et, et, autre chose. <laughs> Vous me permettez d'applaudir <laughs> ah, Allez-y. <laughs> Bah, bah, il faut mieux statuer Khadija. Oui, oui, oui. Khadija, vous... Khadija, vraiment merci beaucoup. Vous, avez, vous avez eu des résultats, euh, j'espère. ah pardon. am ngeen ci ay résultats li ni mel sensibilisation bi askan wi ñu ngi ciy gis seen bopp léegi. merci beaucoup Khadija et bonne continuation. jërëjëf kon mu nekkoon lu am solo ndaw. bi mhm. euh, bokk itam ci xeexu coronavirus bi donc da ci baax buñ ko déggee lii dina mën a am benn impact bi nga xam ne dina ko def ci askan wi surtout ci gox ak goxaan yi mais mhm. damay ñëw ci Abdou Khadre mhm. tey yaa ngi doon wax ci gox ak goxaan yi tey est-ce que yéen dem ngeen ci mairie yi daal di waxtaan ak ñoom ngir ñu ñëw itam. comme ni leen ko plan defalee accompagner leen ci li nga xam ni moom moo jëm ci xeexub coronavirus bi. ci hmm. gox yeeg goxaan yi. loolu moom il faut dire que y procédure ba nga xamante ne moom la ñu suivre. Mhm. parce que nag euh, réew dafa am nu ko organiser. lu nekk dafa am kañ ko dënk mu yor ko di kilifa gi. Mhm. ki te kuy dugg ci kër nag da ngay jaar ci bunt ba. bien jaar ci palanteer sax óorul waxatuma laa tëb mur. beneen la donc li ñu njëkk def mooy gouverneur la ñu bind. <laughs> yéen waaw. Ah. wax ko programme bi. Mhm. mu tontu ñu vraiment lettre bu encourageant bu neex. Mhm. déjà gërëm rafetlu ne lii la ñuy xaar. Mhm. mettre ñu en rapport avec la région médicale fekk bind nañ ko itam. ñu dem région médicale fekk fa docteur Ndeye Maguette. waxtaan ak moom ba d'accord ñu tënk lépp. ba ñu xam nañ koy defee. ñun ñu bind sept districts sanitaires yi. mais moom région médicale bi nga xamante ne mooy seen kilifa tam. mu bind di leen programme bi dañ ci ànd valide nañ ko jàppale leen leen mhm. donc procédure boobu topp nañ ko mhm. ñun aussi ñu ne nañ dem ba ci biir mhm. parce que gox boo dem district boo dem ay commune la te communes yi am na ay kilifa bien ñu jël suñu responsabilité bind na maire yëpp yëgal leen les dix-neuf maires maire communes yi nga xamante ne moom la concerné ñëpp ñu bind leen bind la ville de Dakar mu ñëw sax teew moom maire ville de Dakar ci cérémonie de lancement ba. Mhm. yaa nga foon def na. Mhm. gis nga ko mais maire yi ñu bind maire yi jidde caaro yi ko Cheikh Dieng la ñu toogalagum. ok fekk nañ ko commune am. Mhm. toog ak moom ak njabootam ñu waxtaan ba leeral lépp. Mhm. te foofu dafa importance aussi. Ah. parce que banlieue bi la. Caaroy surtout ci Caaroy kaw c'est vraiment une commune avec beaucoup de quartiers. Mm -hmm. surpeuplés ñu fekk mu nekk nit ki nga xam ne dafa engagé ci combat bi déjà. Mm -hmm. a cinq quartiers yu ñu ciblé foofu. Mhm. donc euh, gis nga liggéey bi di nga xamante ne. Mhm. noonu la war. war war demee. Mhm. donc mais à part ñooñu. Mhm. dafa am ay kilifa yi nga xamante ni aussi dañu am importance. Mhm. ki ci jiitu mooy grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop. moom daf ci impliqué wu. daf ci impliqué wu bu baax a baax a baax parce que 60 quartiers yi ñuy tànn. yu ci bëri ay quartiers traditionnels lébu la. yu mel ni les douze penc de Dakar. kon day day day wane ni rek baaba am na lu mu doon wax sànq mu ne. baat bi des fois dina am solo te euh, di ah. euh, bu waxee niñ koy mën a toppee ndax mun nga ñëwaat ci loolu ah. tey buñ demee ba jël grand sëriñ mm-hmm. mm-hmm. teg ko mu nekk benn euh, porteur de voix boo xam ne moom bu waxee kon waxam mel na ni dina mën a am impact ci mm-hmm. sensibilisation mbas mi waaw parce que ñun dañoo gëm loolu parce que dama ne grand sëriñ da Dakar ak lu muy représenté yëpp ci dakaar tey bu ñu ko duggee si wàllu projet bi mu assister lancement bi moom wax na fa wax bu am solo. Mm-hmm. nit ñi dañ koy déglu dañ ko jox cër. Mm-hmm. nee nga grand serigne de Dakar. donc dañoo ne aussi si gox gaxaan boo fa demee tamit. Mm-hmm. am na njiit yu mel noonu. donc ñooñu bu ñu fa demee da leen di jox kàddu gi bu ñu wax parce que ba léegi. c'est vrai que ñi ngi di ci télévision bi. Mhm. sëñ ñu mag ak kilifa yi diine ñi ngi wax. Mhm. di leen déglu. Mhm. mais dañu ne foo foo dem rek loolu am na fa. donc ñooñu tam il faut ñuy jox leen voix pour ñu wax. ci affaire bi. pour ñi ñi tam mu leen déglu. ñu bàyyi la nga continuer rek. donc moo tax Grand Serigne de Dakar am ci importance. parce que quartier ak village traditionnel la buy dañ ci dañ ci am solo. te ñooñu lee xam nga Covid bi. dafa am benn particularité. mooy lan dafa mel ni dafa remettre en cause suñuy croyance traditionnelle et hmm, ci naka. xam nga soo demee mooy ñenn nañu sax pourquoi ñu tëj jàkk ji. Covid bi tëj na jàkk ji. Covid bi tëj na cathédrale yi. Covid bi nee na bu leen nuyoonte. Mm-hmm. te suñu aada dañu ne soo dajee sa mbokk nuyu ko saa fonteelaax boobu. Mm-hmm. yooyu yëpp nga xamante ni ñun suñu gëm-gëm. Mm-hmm. traditionnel et religieux si la tegu. Covid bi ñëw def ci croix. moo tax dafay metti ci population yi. pour ñu adapté ko. pour ñu adapté ko. ndax soo ñëwaan nuyu nit sax ki nga xam day ñëw rek ne salaamaaleykum dem te loxo dañ naan dafa. ñàkk euh, wóllëre nag maanaam euh, voilà dafa dafa <laughs> xeeb nit ñi waxee et cetera <laughs> donc loolu hmm. covid bi daf ko feeñal wone ko hmm. moo tax ces zones traditionnelles où hmm. les valeurs et les croyances sont te ñu war ko soppi en attendant de vaincre cet ennemi qu'est le Covid. Mhm. mais foog ñu wax ak ñoom. un ennemi invisible ñi leen gën a mën a wax. ku mhm. gën a mën a wax ak ñoom nag mooy kilifa yooyu. Mhm. ku mel ni grand serigne de Dakar. su waxee fukki penceex ñaar dinañ ko déglu. village traditionnel dinañ ko déglu. kilifa gu mel ni Abbé Jacques Seck. baax wax na ko sànq. rencontre nañu la jeunesse catholique Abbé Jacques Seck ñëw engagé wu. jàpp ci mbir mi wax. may leen doole na muy waxee. ak muy déggee ak perspective ba nga xamante ne vraiment c'est ça qui fait son originalité mm -hmm. en tant que prêcheur en tant que communicateur religieux mhm. donc kooku daf ñuy may doole mhm. ku mel ni Guirassy l'honorable député moom nga xam ni jàngoro bi sax daf ko laaloon daf ko laaloon moo tax ñu tànn ko def ko parrain mhm. parce que dund na ko de l'intérieur Léopold Sédar Senghor dafa doon wax ne safara ki ko xool analyser ko ba xam ko ak ki ci dugal loxo mu lakk ko mu wiccaxu kookoo la gën a mën a wax lan mooy safara ndax lakk na ko. ok donc moom def ko dund. vivre ko nag avec avec avec philosophie. moo tax moom il parle de la spiritualité. Mhm. bi ñu war a utiliser dans le combat du Covid 19. Okay. et nous sommes un peuple fondamentalement spirituel. bien donc ce discours là. Mhm. spirituel ba nga xamante ne dañ naan nattu mooy kerkeraani awliya. Mhm. comme na ko mag ñu doon wéyee. c' est important. la -hmm. là tu touches la fibre sensible des populations. Mm -hmm. et en ce moment nag la fattoon seen nopp. saañ ba mhm. day daal di deñ ñu déglu la mhm. mu tàbbi seen xol ñu jëfe ko mhm. moo tax kilifa yooyu am solo ñun nag ñu jiital leen jox leen seen cër mais kilifa yooyu aussi il faut que ñu aider leen à formuler leur discours parce que discours de crise la. wax wax bi du du du xutba tabaski. <laughs> tabaski ordinaire. du xutba euh, tamxarit ordinaire. bien sûr en situation de crise. une crise qui remet en cause nos croyances fondamentales. donc discours bi foog ñu foog ñu tabax ko. discours boobu nag Euh, accompagnant euh, quand je suis avec Baba depuis que nous sommes ensemble mhm. mais mon discours est en train d'évoluer mm -hmm. parce que j'apprends de lui mhm. moom aussi il apprend de moi mhm. les techniciens de santé aussi jàppale ñu pour que ñu construire ce discours là avec les jeunes et avec les dignitaires et les autorités suñu àggee foofu day leer parce que léegi-léegi nag nga gis kilifa bu am yéene bu rafet wax mais wax bi au lieu compte mu defar mu yàq parce que dafa am xam-xam dafa mhm. manqué il faut que mhm. déglu boroom xam-xam yi mhm. moo tax formation bi am solo ok ok Baba kon ba ngeen lancé tey projet yi ba tey quand mën nañ wax ni yéen a ngi ciy mën a yéen a ngi ciy gis ay njëriñ ay évolution mi ngi ciy am comme ni ko Abdou Khadir waxee léegi-léegi waaw évolution pour man dina metti léegi ñu natt ko. Mhm. parce que dama ne tànk chaque jour cas communautaire yi ñu ngi yokk. kon seen objectif mooy ngeen dem ba zéro cas communautaire. waaw waaw tant que ñun dañu ne mbas bu jóge bu fi dañu ne ba léegi ñun on n'a pas atteint nos objectif mhm. loolu ñu inscrire. su foofu ñu inscrire fu mu nekk nii. Mhm. te dama gis ne ne tey. am na d' accord am <laughs> dama xam ne tey mhm. danoo am benn opportunité bu rëy li nga xam ne mooy seeni devise mhm. mooy un peuple un but une foi mhm. pour man tey ni nu war a xool loolu nu ngi koy opérationnaliser parce que tey eh, conscience citoyenne bi dana war a xool nu mu développé parce c'est le pays c'est le monde qui est en danger, c'est l'Afrique qui en danger, c'est le Sénégal qui est en danger. Parce que mm-hmm. ñun on est un pays sous-développé. Mm-hmm. un pays pauvre. Mm-hmm. suñu koom-koom développé wul. donc gis nga déjà conséquences yi am. depuis affaire bu mu amee. tey boo giñee nit ñi ñaar moo leen di jégloo bu ñu génnee seen kër wuuti li koom-koom li may indi sama kër. pour jox leen ñu lekk naan ndékki ah. ah li nga xam ne peut-être dañoo génn pour foo. pour wuti leneen. mais bu nekkee bu weesoo ñaar ñaar yooyu. ñeneen ñu si doon génn yëpp pour affaire yu demee noonu am na ñi nga xam ne seen choix individuel dañ ne ah man da dama doon dem jàq ba wala dama doon dem église bi waaye fu mu nekk nii mun naa toog wala damay dem jël samay mesures de protection maintenant si loolu je pense que comité de veille parce que dama koy rappeler ñun dañoo ne ay comité de veille d' alerte et de surveillance communautaire ni ñu def en place au niveau des quartiers mooy lan kuréel yi ñu defar au niveau des quartiers du seulement waxtaan sensibilisation mais dañu saytu melokaan yi ñu ñu bindoo. Hmm. bu ñu gisee affaire bi nga xam ne dafa ñaaw dafa tey seen xel. Hmm. lu ñu wax ay cas suspect hmm. ah ñu alerter le district sanitaire. mu mun rapidement mun jël. ay ay mantuwaay. formation bi bokk na ci loolu. te loolu dañ ko intégrer aussi si formation bi. lu ñu wax aussi alerte alerter mooy tey gis naa mesure barrière yi kenn respecté wu ko. te xam nga ni lii risque la. yow gis naa ne zone bi ah ñu zone bi de am na ay cas communautaire wala am na sa ay kan yu fa amoon Covid. Mm-hmm. mais zone bi ñi ñi ñi topp nu masque su solutu nu masque yi. Mm-hmm. wala respecté wuñu mesures yi. Mm-hmm. wala ay raxasu ak saabu wala yooyu sax respecté wuñ ko. yow tamit yooyu da ko war alerter pour gars yi xool ni ko sax mais doo toog rek croiser balaa yow yow kenn mi ñu formé def la au niveau du quartier. sa rôle la mooy nga xam fooy mun jaar pour jéem a pousse ñi ñi ñuy respecter ces mesures barrières. loolu moo tax ñu ne. alerte surveillance ak veille. au niveau communautaire. Mm-hmm. alors léegi. Mm-hmm. kon yéen bu ngeen jógee plateau donc yéen a ngi dem ci yeneen communes yi wala ci yeneen zone yi wala daanaka formation bi yemb na bàyyi rek euh, ñu dem ci relais yi. plateau benn commune la si. ok li laal yëpp voilà. def na ko. Mm-hmm. def nañu Ngor Wakaam Yoff. Hmm? def nañu euh, plateau Médina. def nañu district centre. ok kon mel ni daj ngeen léegi. déedéet des na banlieue bi. ok hmm. des na Géejawaay. moom laa wax district de Géejawaay ma ne deuxième phase bi. kon Pikine. Mhm. ak ah, Mbao waa côté yooyu nag. yokk nañ ci sax nag fu mu nekk nii district nord. ok fu comme ça département Dakar daj na. daj na bon malheureusement on n'a pas beaucoup de quartiers on a seulement deux quartiers. Mhm. moo tax ñu ngi au partenaires yi nga xamante ne gëm nañu xeex bi. Mhm. ñu ñëw jàpp ci surtout les maires. mais ñoom ñoo war a nekk seen premier ah interlocuteur. ah oui bon maintenant on comprend mm -hmm. que affaire bi dafa bett nit ñi les gens sont en panique mhm. bon le budget est fortement grévé mhm. parce que ay dépenses suñu sóorul woon la mhm. donc bon on les comprend un peu okay. donc ñenn ñi sont un peu parce que ñoom seen bopp am na lu ñu war a def c'est aussi des acteurs politiques xam nga communautaire quelqu'un de la société civile intervient un acteur politique c'est différent bokkul waaw c'est différent mais na xam ne comprendre nañ ko parce ngi seetaan actualité bi mais da ngay gis ay descendre sur le terrain. oui di distribuer seen bopp ay masques. oui oui oui au delà même yi ni mais mhm. man gis naa ay maires qui sont engagé engagés. Mhm. maintenant ndax man benn appel laay lancé. mooy mooy tey. Mhm. fépp fi nga xam ne am na commune. fii si senegal maire bi tey. na ne ma par rapport man sama quartier village yi nekk fii il faut ma taxawal ay sentinelle yi nga xam ne ñoom ñoom ma fay nekkal ñoo fay nekkal gouvernement bi ñoo fay nekkal askan bi ñooñu seen rôle rek mooy jàppale si état bi si wàllu xeex bi ñooñu soxlu sax ñi leen di financer ay bénévole lay def. parce que mhm. instant bi danoo toll si kiiwu bénévolat mhm. pour sauver ce pays. Mhm. parce que bu nekkee xeex bi dañ si laaj koppar. wala financement wala budget. duñ si mës a génn. mooy engagement citoyen bi moo la wax. ku nekk nag moo war a jiitu. ku nekk nanga nga jàpp ne yow fi nga toog. ngay yaay ngay pap ngay xale ngay daw. ak nomb baat boo yor ngay imaam ngay loo mun ti doon neel man lan laa mun def pour sama askan pour jële fi mbas mi bi na commencé si man commencé sama famille bi ak commencé sama quartier bi après affaire bi day law jusqu'au jusqu'à prendre tout le Sénégal et loolu moo ñu jàppale nag pour que qu'on oublie un peu la dimension politique parce que un acteur politique su intervenir toujours mooy différence boo la wax rek mën na wàcc distribuer ay masques mën na wàcc jëmbat ay garab mën na wax mais le retour politique. Mhm. moo ko yàq même distribution ceeb bi li ko tardé loolu la. Mhm. le riz est là l'huile est là le sucre est là mais la distribution tarde. mais yi ñu ne jàngoro bi nañ ko tal ba pare balaa ñuy tey ceeb bi. ah non attends ñaari ñoo ànd. parce que mhm. quand même on demande aux gens de limiter. leur déplacement. même suñ ko mënul tëj ne la toogal confinement total mais dañ la demander nga limiter ko. te hmm. dëkku néew doole la. dëkku baa doole la ñu dimbali nit ñi si ceeb si diwlin dara newu ci. mais warul woon yéex itam boobu day jàppale. moo si xam nga rek les procédures. Hmm. est-ce nga la dimension politique ñenn ñi comprendrul hmm. dugal ko ci biir loolu yëpp dafay dafay nekk ay pesanteur yuy diisal riposte bi yu koy yu koy koy tardeel moo tax impliquer les acteurs impliquer la société civile ñu joxante loxo ak acteurs politiques yi ñëpp dugg ci terrain bi. Mhm. da koy faciliter. Mhm. parce que su boobaa les intérêts particuliers personnels dañ koy fàtte xam ne. Mhm. c' est un combat que nous sommes en de mener. et ce combat doit être rapidement. parce que suñ ko remporté wul day li muy yàq day bëri. soo nekkee ci biir. est déjà li muy yàq rek bëriwul. mais déjà li mu yàq bëri na. li muy yàq bëri na li impact économique bi. xaaral ba ñu àgg ci après Covid bi. su ñu demee ba xeex Covid. évaluer mm-hmm. non xeex bi du yem ci Covid bi mm-hmm. xeex bi du yem ci Covid bi jugee na. Mm. mais wax naa la ko bële passé yan jeexit ak lan la fi Covid bi yàq. Mm. loolu ñi am xam-xam dinañ ko évaluer dinañ gis ne yàq bi bëri na. Mm-hmm. moo tax c'est un combat très sérieux. un combat. trop sérieux mhm. pour que ñu war ci def yenn erreurs yi mhm. en tout cas nañ laxasaayu mhm. nañ ànd nañ xeex àndax dignitaires yi àndax autorités religieuses yi àndax maires yi àndax districts sanitaires yi les techniciens ñëpp ñu ànd liggéey liggéey bi mu sotti ak yu vous la presse vous avez un rôle extrêmement important dans la riposte parce que li ci ëpp sensibilisation la te yéenay lantinoor bi war a jàllale diwlin bi boo laati noonu rek dafa melokaan yi ñuy xaar ci moom. me mel na ni de euh, presse bi. Mhm. chaque jour bu génnee xibaar. Mhm. Covid mu ngi si gémmiñ ci mhm. je pense que ni. ñu ngi ciy góorgóorlu euh, bu yi ñu ngi siy bay seen waar. waaw ñu ngi ciy ñu ngi siy bay seen waar ñu ngi siy ñu bay seen waar. mais mënoon na gën a rafet. waaw waaw mënoon na gën a rafet mënoon na gën a yaatu. waaw waaw. kon ñu ngi ci njeexantalu <laughs> <laughs> émission bi mu ngi ci njeexantalu émission bi mu ngay jàngal olof bu baax <laughs> alors monsieur Sy mhm. tey euh, benn ni ñaari simili moo ci des mhm. tey kàddu gu mujj gi tey lan la lan ngay gën a mën a waxaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci jàngoro bi coronavirus bi ak sensibilisation bi waaw damay remercier vraiment euh, plan international bi nga xam ne ñoom ñoo fi yebal tey mhm. di remercier EMAD Mm-hmm. aussi si li nga xam ne ñu ngi koy def depuis le début. Mm-hmm. par rapport projet bi. Mm-hmm. ak engagement ki nga xam ne mooy coordonnateur di remercier aussi leader communautaire ñi ni formé yëpp. ñi nga xam ne tey ñi ngi si terrain bi bénévolement aussi ah. pour xeex Covid au niveau des des soixante quartiers yi nga xam ne dañ ko ciblé. di remercier aussi presse bi daf ñu accompagner parce que y a une bonne am na benn phase bu. benn kii Facebook bi ñu tijji mhm. muy ànd aar dafa ma mhm. publicité mhm. mais boo leen duggee si Facebook si Facebook boobu si page boobu di ngeen gis lépp li nga xam ne ñu koy def depuis projet bi bu mu commencé ba ba léegi donc maa ngi encouragé jeunes yi ak ñeneen si Facebook di am message yi ngeen soxla yëpp di ngeen ko am di remercier Cheikh Omar ak Khadija yi nga xam ne intervenir di wax ne lii pour man commencement la defaguñu dara soixante quartiers ñu ngi sax. Mhm. fu ma nekk nii initiative bi. Mhm. danoo ne ñëpp ñin suñu région yi nga xam ne ñu ngi fay intervenir à l' du pays dañuy def yëpp ba avec district santé mhm. pour mettre pour mettre en place ces EMAD nekk foofu ñàkk mais nañu xool yan kuréel ñu fi ñoo ñu fi nga xam ne ñu ngi foofu ñu jéem a lëkkaloog ñoom mm-hmm. impliqué ñoom nga xam ne tout le Sénégal mm-hmm. day am un maillage complet du territoire euh, di sama message aussi di wax ne aussi parents yi surtout mm-hmm. les parents tey ne ni gën a def attention ci seen doom yi tey la xale yi gën a soxla ñi yiir leen gën leen soxla ñu protéger leen parce que instant la xale yi gën a vulnérable xale san di ngeen dem ba ci kanam ñaanuma ko yàlla yéen a ngi commencé di dégg ay cas de da ngeen wax teel na. Mhm. xale yi lu ñu fay def mais dafa wóorul instant bi xale yi danoo désœuvré. Mhm. jànguñu defuñu dara. Mhm. donc il faut que xale yi aussi ñi jëlaat euh, parents ñi jëlaat seen responsabilité pour surveiller xale yi nekk à leur côté. par rapport à ça. plan daf leen beral loxo. parce que bu ñu jëltee bi ñu nee woon bi ñu koy doon dañ koy waaj ubbi. plan dafa doon lëkkaloog ministère de l' nationale jënd jumtuwaay yu am solo. si wàllu masque wàllu produit pour jox ko ay école kon bu du ko naree ubbiwaat itam yéen a ngi ciy xalaat leen di jàppale defoon nañu benn enquête bi nga xam ne jigéen yu bëri nga xam ne di nekk si gox goxaan yu nekk si biir dëkk bi mhm. danoo ne ñoom sax danoo dem na ba koom-koom bi fu mu nekk nii pour ñu bu ñu gisee seen seen mbaax sax mhm. pour ñu pour ñu jënd service ak sa problème la mhm. tax na plan jënd laa la wax ay valeur important mhm. pour jox leen ko may leen gratuitement yooyu yëpp ci xeexu mbas mi loolu yëpp la bokk quoi. Euh, ak seen jàppandal tey itam rajo Rewmi FM ñëw gunge leen ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci xeexub coronavirus boobu noonu. kon dañuy jox Abdou Khadre euh, ci kàddu gu mujj gi. waaw tey lan la. Mhm. remercier. Mhm. Euh, Rewmi FM vraiment ci jàppale bi. parce que bunt bi ngeen ñu ubbil bunt bu yaatu la te lu bëri mën na fa mën na fa jaar. vraiment ñu ngi leen di wax. jërëjëf mhm. di remercier seen naattango yi ñu jàppale xaw ma ndax di moo ko permettre mhm. ku mel ni benn une euh, télévision communautaire mhm. bu nekk Rebeuss ñu koy wax Rebeuss TV vraiment mu nekk des jeunes engagés dañu tàmbali xeex bi rek ñu ñëw ànd ak ñun vraiment et ils ne nous demandent absolument rien ils le par conviction ñooñu mënuñu leen ban bañ a gërëm le ministre Seydou Guèye jaar na ci formation yi jël fa ay engagement yi nga xamante ne gëm naa ne dina ko dina ko dina ko dina ko àggale. le directeur du soleil Yaha Mbaye dama ko moom aussi il nous a promis son accompagnement. te gëm naa ne dina ko dina ko doxal. noonu la ñuy continuer nag. kilifa yëpp. ñu ñu ubbi bunt bi ñu ñëw bokk ci xeer bi di mhm. parce que ñoom sax ñu ngi si ba pare. mais problème bi yëpp mooy naka la ñuy déggoo. Mhm. àndandoo. pour am plus d'efficacité ku nekk ñun lañ leen mën a indil yokkal leen ko ñu yokkal leen ko mhm. ñoom lu ñu mën a yokkal ñu yokkal la ko lu ñu mën a ànd defandoo ko mhm. ñu àndandoo mhm. defandoo ko le maire Cheikh Dieng de Djeddah Thiaroye Kao qui nous a reçu vraiment ñu waxtaan mu jël engagement ne que moom mu ngi ax ñun ci et les jeunes relais et leaders communautaires xam ne bénévolement la ñuy def mbir mi amul salaire amul dara bénévolement engagement communautaire suñu mbir la vraiment yàlla na yàlla jàppale ñu mu nekk ko aar. Mhm. aaru. Mhm. mbas corona. comme on merci beaucoup <laughs> am na solo mel na ni waxta bi euh, dab nañu euh, émission bi jeex na fi la ñuy joxante dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité incha allahu